Oui. Parce que nous, les rappeurs, ça toujours été notre mission. Mm Ça toujours été notre combat. L'esprit patriotique et l'esprit panafricain. Oui. Depuis quand on le, on chante Depuis quand, ñu ngi koy way Diko xex ay Thomas Sankara. Nous mhm. voulons être indépendants. Et notre indépendance commence par, par l'économie. Économiquement, que le Sénégal et l'Afrique soient indépendants. Mm donc souveraineté bi bu ñu mën a wax foofu lañ ko mën a jëlee. loolu rek la gis nga tubaab yi fépp fu ñuy yëngal rek. c'est parce que dañoo bëgg a rokkos à côté suñu alal bi ñu bëggee sàcc pétrole yu lii bi lan la ñuy def indi fitna lii bi. moment bi ñuy reyante gaa yaa ngi rocc pétrole bi di yóbbu moment bi ñu bëggee taal Irak Irak bi muy yëngu américains yi ñu ngi jël alalu seen pétrole di yóbbu. léegi on est xaw ma fan de. Hmm. mais Afrique l'Afrique de l'Ouest le Sénégal. Mm-hmm. on est éveillé kenn mënatuñu nax moo tax ñi fi nekk fal nañ leen jox nañ leen lépp. le mm-hmm. président Diomaye le président Ousmane Sonko vous n'avez pas le droit de décevoir le peuple sénégalais liggéey leen. teg leen ci brique. alors mën nañu wax ci ci gouvernement wu président Diomaye la culture urbaine a été bien servie parce que am na ñaar ci yéen yoo te ne am nañu ay nomination muy kilifa ak moo di nit dof d'abord la moo nekk seen relation yow personnellement ak ñaar ñooñu. non non mais attends. avant may ñëw sama relation ak ñooñu. oui da ne la culture urbaine a été. bien servie bien servie. non da naan nit dof. et kilifa. ont été bien servis pourquoi. mais kilifa n'est pas la culture urbaine. c'est un élément de la culture urbaine. oui mais buñ ko falee mën nañ. qui s'est battu qui s'est battu pour le projet. nit dof s'est battu pour le projet. donc ñoom la fal. mënul am apport ci culture urbaine bi. <coughs> mën na ci am apport. fu mu jeex fayda gi foofu la nekk. Mm-hmm. parce que il est temps parce que dañu am opportunité ah. parce que kilifa moom mu ngi nekk grand théâtre culture urbaine ne tijjil grand théâtre culture urbaine. Mm-hmm. organiser ay festival c'est un conseil que je lui donne. Mm-hmm. dem wuti ay partenaires. il a l'opportunité de servir le mouvement hip-hop et en plus de servir le mouvement hip-hop il doit aussi servir la culture sénégalaise en général parce que grand théâtre ça ne relève pas seulement ou plutôt c'est pas seulement pour la culture urbaine mmh. vous avez compris c'est également pour toute la culture sénégalaise voire la culture africaine Afrique. et concernant Nit Dof bureau culture urbaine c'est pas quelque chose de, de petit man je un appel à Nit Dof ba pare fonds lañ ko jox voilà te fonds boobu nag dañ ko yàgg wax rek Mm. mais fonds boobu ça fait des années doxul mais avant deux ans yi suma juumul même TED yi rek lañ doon financer fonds culture urbaine c'était un cercle loolu ñun ñëpp xam nañ ko man j'ai jamais bénéficié ci fonds wu culture urbaine musuma gis nu mu mel musuma xam nu mu mel en tant que artiste ak li ma def yëpp mosuma mm. sax dugal projet parce que toll naa moment boo xamante ne y a des milliers et des milliers d'artistes au Sénégal. man ma gën leen situation. je me dis que fond bi naa bàyyi ñooñu ñu mos dara. Hmm. parce que nit boo bëggee naan këll këlluk lem. boo moytuwul doo ko jeexal de. foofu ngay def. waaw comprendre nga. Hmm. donc Nit Doff c'est un frère ah. c'est quelqu'un qui me voue bokk de respect et que je voue beaucoup de respect kilifa. dañoo dund lu bëri. Hmm. kilifa kër gi dañoo jàpp sama carrière. mais man Red Black aussi dama jàpp seen carrière. et j'en aussi pour big up Thiat. Thiat big up aussi Mola Morgan. Hmm. parce que Mola sama doomu nday la sama gaay la. mus na ñëw ne culture urbaine Red Black lañ ko jox. fii nit dof nekk ne Macky Sall man la ko jox. fonds de développement culturel. mais après dama ko oo ne ko frère mu ne ma wooye ma ne ko yenn sorties yi boo koy defati dag may oo yaa sama numéro maa ngi sa numéro bul juum j'ai jamais été nommé par Macky Sall Macky musuma nommé. Hmm. donc c'est important kilifa nit dof samay frère lañ maa leen di ñaanal nag vraiment ñu réussir seen mission. mais nañu tijjeeku nit dof. Hmm. maa lay lancer message man Red Black. da ngaa jiite loo xam ne moomoo ko alalu mbooloo la. donc maa lay ñaan nga juboo ak ñëpp. kot nag laa ci def juboowal ak ñëpp. <laughs> <laughs> <laughs> Euh, tey li nga codé bëri na grand. non mais tey li nga codé bëri na grand c'est normal c'est normal. xam nga des fois moom àdduna boo fi nekkee ak maturité. di nga dem ba t'as pas besoin d'utiliser. jaratu yenn fukk beeg jaratu ko léegi xel rek lañuy ñuy demee. Mm-hmm. looloo fi am di. koo xulool tey wax ko wax bu ñaaw. suba. da nga koy dal na ma ci kilifa. Hmm. mais nag booy <laughs> <laughs> maa ngi koy nuyu ah di nuyu ah, jabaram yenn rapport du ñàkk da di xoosante lu bëri. non mais waaw mais mais quand hmm. même c' hmm. parce que bi muy ngénte taawam man fa laa yendu. donc yooyu c' symbolique. voilà seq nañ lu bari daal. mbokk la daal yow ñoom. waaw soxnaam aussi maa ngi koy nuyu. maa ngi nuyu aussi euh, Thiat. di nuyu Gajaga. Gadiaga ah, le ménageur bi yëpp quoi. Mm. <laughs> waa penku saay nous nous on une famille quoi. <laughs> alors grand amoon naa mbégte ànd yow ci waxtaan wi daanaka mm-hmm. évacué nañ point yi ñu amoon yéen a waxtaanee ko. tout rek nga tàggatoo ak internet yi. waaw mais ça a été un grand plaisir mm. parce que déjà c' est rare quoi dugg sax ci yenn domaines yi. parce que tey moom dañoo dépassé sax politique quoi. Mm-hmm. voilà donc ça a été un grand plaisir. Mm. te encore une fois maa ngi nuyu sama présidente Aminata ak Mimi 2024 mouvement bi yëpp ñu nekk ay jàmbaar. Mm-hmm. puis mu liggéey liggéey bu am solo Kaolack. ak dakaar xam nga ak sur le plan national yëpp. waaw vraiment di ko féliciter féliciter féliciter aussi vraiment mouvement bi yëpp te xam ni c'est quelqu'un de loyal. Mm-hmm. bu àndeex yow ngor la lay wan de li yàq seen diggante du jóge ci Mimi Touré ci yow lay jóge mm. kookoy Aminata Touré. waaw encore une fois du nuyu Fadia bi mu jógee xam nga Mbour sama dëkk. Mm-hmm. Konaté Kounda la famille. donc bar Bargny donc Bargny yëpp maa leen di nuyu nuyu waa Casamance aussi Soulek voilà toute la famille Mballo donc maa ngi nuyu ñëpp ah, ça a été un plaisir Teranga TV mhm. voilà di di di la yóbbante nga nuyul ma Matar Seck Matar Seck dina ko dégg xam naa mu lay seetaan bu boo déggee Khalil Khalil aussi Khalil Seck uh-huh. nga leen red black mu leen nuyu. dinañ dégg yóbbante bi incha allah eh, c'est ma famille c'est mes amis. <laughs> mais eh, eh, yaa ngi wax sant su des fois xanaa da ngay takk kankuran wala wala da topp kankuran wala. laa bokk. Hmm. foofu laa bokk fa laa juddoo. je de Santossou. la famille Konaté. les Moussa Konaté footballeur sama rakk la. Hmm. famille boobu laa bokk. ok fa laa juddoo sama yaay fa la dëkk. Santossou waaw Santossou kër abu Konaté. moom surtout Abou Konaté la. en face lycée Calde bi. waaw waaw c'est ça. Hmm. et ah. le, le terrain Mbour Petite Côte. mooy Bayal Kankuran yi mm, Touré Kunda. waay Touré Kunda. Konaté mm. Kunda Sonko Kunda. Mm. tu vois ça c'est su ko loolu mooy Mbour. loolu mooy Mbour en tout cas <laughs> merci beaucoup di la yóbbante Sidi Bara ne ko soxla nañ ko fii. Sidi Bara mu mu mu def déplacé wu ñëw ñu waxtaan ak moom parce que moom itam. Mm-hmm. daanaka actualité bi da koy soxla lu bëri loolu yóbbante la. c'est quelqu'un de très engagé. quelqu'un mm. de très fidèle. kooku bi muy ànd ak Mimi Touré. ndey. mi Mimi Touré nekkul sax charge envoyé spécial président de la République. Hmm. ça fait l'occasion d'en parler. parce que temps yooyu kër Mimi Touré daana wéet hmm. si di Baara gëm ndaw mooy bi ngeen nekkee ci diggu combat bi. non wala bien avant loolu mooy bi ñu njëkkee toroxal fële na la. waaw Macky daf ñu yàgg toroxal mu Touré de. Hmm. mooy primature ga. waaye dàq ko. moment boobu nag ci Mimi Touré ci nga ci la formé nag. le noyau dur. ay Sidi Baara. Mhm. ay Grand Diatta. Mhm. la jaata Mbour. oui mu nekkoon ay moment yu délicat. Sidi Baara nekk nit ku gore. àndu tax nit ndax intérêt àndu tax nit ndax poste. Mhm. grand boobu c' est de bien c' est de positif. occasion yi su ma ko amee il faut ma wax ko daal. <laughs> en tout cas nit ku ànc la et aussi borom xam-xam la boo demee nekkoo waa Sen Teranga soxla nañ ko mu ñëw. je manquerai pas. incha allah dina defal loolu.